simili ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakarnet daara du ci réew mi dalee nag jàmm ci li yéenekaay yi xëye tey Walf Quotidien mi ñu koy doore rëdd ay kàddu kàdduk Ismaïla Madior Fall ci ne Ousmane Sonko mënees nañu ko attewaat maître Sidiki Kaba di àdduni waa Pastef li ñu leen dànkaafu ni daanu leen yóbbu ci yoon bu gën a kawe ci àddina bi muy yi ay waxu caaxaan la xep kàddu yu ñu mel ne état daal kenn mënu ko yóbbu fenn Bougane Gueye Dany di njiital euh, gëm sa bopp di tontu waa nguur gi ci biir Walf Quotidien moom itam source a feelu ko rëdd moom itam ni ñaari waxtu la njiital jëwriñi di Amadou Ba Sidiki Kaba Ismaïla Madior Fall ak Antoine Diome jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñoom daal daal dinañ def seen théâtre ba noppi la ñu fa wax yëpp da ay léeboon a ki léppoon na sol seeni costume ak cravate yu rafet te niroo teg si itam bés bi le jour àddu moom itam ci li mu duppee équipe comme bu Amadou Ba nañu doxalee ngir wax ak askan wi jiitu jëwriñ yi di àdduni xam nañu bu baax a baax lu mën yëngal réew mi ak ñi nekk ci tànk yooyee te yoon dina jël ay matuwaayam ma Madior Fall di jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon Sidiki Kaba ak Karim Fofana ku wax ci coow bi lëmbee réew mi jamono yi ñeel mbirum Ousmane Sonko Sud Quotidien dikk si moom itam nu mu gën yaatoo àdduni nguur gu Sénégal wax nañu ñoom itam ak askan wi àdduna ñu wax seen i ñetti dëgg yu ñu jàpp ni noone la mbir yi tëddee le quotidien feelu ko ne nguur gi xeful benn yoon ci ay kàddoom Amadou Ba mi leen jiite di wax ni képp ku taq ci manifestation yi yoon dina dal sa kaw def liggéeyam. l' observateur xëy moom itam wute ay kàngam yi seen xam-xam màccu ci wàllu communication de crise tuuma ci li ñuy teg seen kaw jamono yu ñu génn ñeel mbirum Ousmane Sonko la tribune mel na ku koy dëggal ni li waa nguur gi wax nag moom dalul xel benn yoon te neexut gëm mbirum vidéo yu nerve yi ñi lam ci àddina bi jamono yi tegum loxo Ousmane Sonko. kii di Ismaïla Madior Fall di si àdduwaat sa wet ga Bougane Gueye Dany àddu nguur gi lay gu ñu lay taskatu xibaar yenn bitim réew dañ ko daal di faxas ba mu set teg ko fële andi dëgg gi nga xam ni moo am las rëdd moom itam ak nataaluk Amadou Ba di njiital jëwriñ ñi rëdd ne nguur gi mu ngi tontu moom itam yor-yor xëy ñu tey ak li fi jot a génn àddina ci ay doomi aadama ñeel manifestation ya amoon 2021 ba 2023 muy ay ndaw yu xamagul àddina toll ci ñeent fukki nit ak juróom-benn sa Ziguinchor moom yéenekaay bu Serigne Saliou Guèye bi di ñu xam xamle ne dañu fay tere njaayum paaka ak jaas yi yi ndonte ñu ngi jub tabaski gi ñeneen na ñu tegoon loxo ñu toll ci fukki jigéen ak ñeent yu bois sacré ya ñoom dañ leen bëggoon takkal ay lam ñu daal di lànk ba tëdd sa naaj wa ne bracelet électronique yooyu kenn du leen ko takkal la las xëy ñu moom itam di ñu xamal ni chef de protocole bu Ousmane Sonko mi ko doon jëndali la mu dundee mook ak njabootam ñaaw ba ñu baarawee ko ba kenn du dugg kenn du génn dañ ko faf tere démb ba tey ji mu àgg ci kërub njiitub Pastef ba Les Échos dikk moom ci grève bu démb mu mel ne lu jëmut kanam ndax kër liggéeykaay boobee ña fa ne dañoo féewaloo lool la tàggat yaram la ñuy jeexale ak state le quotidien bi ñu xëyee tey ak Sadio Mané rëddine ñancoo bi ëllëg lay tasewaat ak waa Benin muy fàttali ñetti bi yomu mu a dugal la daal di faf sax raw kii di Henri Camara record dikk ci latéraux yu saf-sap yu Sénégal nar a aligné muy Formose ak Japok si Cissé di tàggatkatu gaynde yi moom nar a teg ab 4-3-3 suñu làmb mi ñu jeexale dikk si euh, saison bi ñu faf neef ndax komba yu mag yu ñu fomb yu si mel ni bu Eumeu Sène ak balagay Gaye moom Eumeu Sène di àdduni jotagul benn firnde mbaa këyit buy won ni combat boobee dañ ko dàq ba jëmi jamono. yéenekaay bi dikk ak Ama Balde doomu Falaay Balde bi moom daraja bi ko topp xarfa fuufa ya fukki at ak juróom ya mu def ci làmb ji ak mystique ba mu àndal lool itam teg si suñu làmb àdduna mu gën a yaatoo ci ay jaloore doomu Pikine boobu di